mooy li ñuy ñàkk ëllëg xam nga lan la ñuy ñàkk suñu doole bu demee bitim réew ñun ñoo fii néew doole boo doon doon dégg ci tubaab yi ñu leen di naan seen population dafa vieillissante mooy amatuñu woon doole pour liggéey ci seen i réew bu dul woon immigration bi suuf nañ bu yàgg ak li ñuy bruit bruit bruit suñu xale yi bu ñu eggee seen dëkk yi dañ leen di laaj ñi am métier ku ci am métier dañ lay rawale gaaw yóbbu la mais nga may ma aussi ma nuyu leen ndax fii dëkku sëñ Bàmba région de Diourbel ku fi dugg xam ni dafa am li la war sa diggante ak say mbokk taalibe donc euh, am li nga xam ne nag loolu Mbàkke laa ko waroon defee ak Touba te dinaa ko def mu ware soobee yàlla Diourbel nag nekk dëkk bu tumuranke dëkk bu tumuranke ndax ñëpp xam nañ envergure bi région bi waroon am ci wàllu koom mais malheureusement li war ci matuwaay ci bépp kuréel bu nekk ci région bi defuñu ko jël centre def ko université ngay jëlee ay doomu jàmbur yeneen région indi leen fii ci gox bi nga xam ne même bu ñu amoon moyen sax day jafe pour ñoom pour ñu am fu ñuy luwewee nga ne université la te defoo efort pour que ndaw yi fa nekk mun am ay dëkkuwaay yi war donc moo leen di won incohérence yi am parfois ci offre d'enseignement supérieur buy am suñu réew donc booy jàngale da ngay xool li sa gox yi soxla ci ay profil yi mën liggéey ëllëg nga jàngale filière yooyu ci ay université moo gën ñu jël suñu ay doom di leen dugal ci ay filières yi nga xam ne ñëpp xam nañ ni ci chomage lay mujje donc loolu dafa bokk ci yéene bi nga xam ne am nañ ko ni koy defee nag ci université noonu lañ ko xalaatee dans l'offre de formation professionnelle buy law fu ne ci Sénégal san qu'il n'y ait de normalisation san qu'il n'y ait un effort ci wàllu curricula de formation ngi leen di sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah